moo toogee jataayub sëriñ Cheikh Amadou Mbacké yàlla na ko fi suñu borom gën a yàggal te gën koo wéral mi ngi nii toog ci jataay bi ànd ak ay rakkam sëriñ Ousmane Mbacké ak sëriñ Mahmadan Mbacké ak euh, soxna Ndey Fatma Mbacké ak euh, soxna Daba Mbacké ak soxna Muslimatu Mbacké moom sëñ dan xariloo fekk fii itam jëwriñ ñi nga xam ne ñoo jiite fédération bi sëriñ Gàdd Sall mi ngi nii toog soxna Ndeye Fatou Mbacke ni leen ko waxee moo jiite wilaya femme yi ci réew mi yëpp ak bitim réew li nu tax a daje nag tey mooy ndigal li nga xam ne moo jóge ci xalif général des Mourides ak Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool. li tax nu daje fi nag moo di ndigal lu mag lu rëy li nga xam ne moo jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides mu digle bisub xasida boo xam ne. da koo jàpp ci benn fan wala ñaari fan ci weeru tamxarit tolloog fukki fan ak benn ci mois d'août mu ne itam li tax mu taamu weeru tamxarit mooy xam gi mu xam ne tamxarit mooy weeru sëñ Touba la te ci lañ ko waajale woon jëlee ko njaarim andi ko Touba mu ànd ak ñu baax ñëpp ñu nekkoon àdduna muy malaaka yi ak yonent yi ak ñu baax ñëpp réew mi nag wala àdduna si. sun borom teg nu ab nattu mooy teg nu wàcce fi mbas moo xam ne sëriñ bi jot na ne xam na ne yaakaar na yaakaar ju wér ne xasida yi suñ ci delloo ni ko sëriñ bi bëgg te sellal ko mbas mi sun borom mën naa dogal mu jeex takk nawet bi ñuy dugg itam sun borom mën na koo def muy nawet bu barkeel mu taamu ko nag ci weeru muharram yi nga xam ne ci lañ jël ci lañ sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke jëlee woon sëñ Touba njaareem andi ko Touba. ndigal loolu nag bi mu ko joxee sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne moo jiite Hizbut Tarqiyyah wax ko ne ko na nga dem ci sëriñ Amsatu moom sëñ Souhaïbou ci wàllu njàngum durus mi ndax képp ko def dara ci xasida moom nga cay jàppale ba mu ko waxee loolu ba noppi da ko ne bu ngeen noppee nag ngeen dem ci waa yi ngeen ànd toog nas loolu moo tax waa Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop yëkkati seeni kàddu ñëw ba ci kër gii di kër sëñ Abdourahmane di kër sëñ Cheikh Amadou Mbacké def fekk noonu jataay loolu nag la sëriñ bi wax ne moo tax mu dajale mbooloo mi ngir bëgg ñu jottali ay kaddu. mel na ne ndigal jóge na fa mu war a jógee jóge ci xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te fu mu jëm ci mboolem taalibe yi yépp la ndigal li jëm ndigal li lan la mooy jàng alxuraan jàng xasaayit ak bernde ndigal li nag ñu am ci xaas ni ko sëñ Bassirou ñaan waxe léegi ñun waa wilaaya te mooy sëriñ bi daf ñoo boolee ci ñi nga xam ne ñoo war a taxawu bis boobu loolu nag sëriñ bi wax ne euh, cërub Seex Mamadou Moustapha la ba tax na nee na kon nañ ko yaatal bu baax a baax a baax a baax ba tax na kon bis boobu ñu ngi ci woon ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo aju ci bi mboolem section yi nga xam ne aju nañ ci fédération bi sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo ñu ñëw taxaw ci liggéey bi liggéey bi nag jàng la ni ñu ko waxee léegi jàng xasaayit ci kuréel. ci rajas ci drusko loolu fan lañ ko defee fii ci mbaarum Daaru Xudoos mi ak li ko wër kon ñu ngi ci woo ñëpp la ca des itam ab liggéey la muy togg ay bernde yu jëm ci jaami yàlla yi loolu fële ca tóokër ba lañ koy taxawoo loolu itam ñu ngi ciy soññ ñëpp kon daal sëriñ bi ci turam ñu ngi soññ mboolem section yi aju ci fédération bi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo gën a jege muy Taïf ak Jurbel ak Mbàkke ñooñu nañu teel a ñëw teel a jàpp ci liggéey bi su ko defee itam ñu xam ne liggéey bi talaata lay tàmbali incha allah ci suba loolu ñu ngi ci soññi ñëpp itam section ci des yëpp itam ku ci mën a ñëw ñu ngi lay woo nga ñëw ci bis bi jàpp ci bis bi la ci des itam maa ngi soññi ñi nga xam ne nag rawatina ñoo bokk ci section Touba te ma ànd ko soxna ak soxna Fatou Khary Lo mi ak soxna Ndeye Mbacké daayira yëpp président daayira yëpp ñu ngi leen soññi nañu teel a ñëw ci liggéey bi teel a jàpp ci liggéey bi ñoom jàpp naa ne sax soxla nañ leen alterné incha allah ngir ñu commencé liggéey bi jàpp talaata jàpp àllarba kon loolu mooy ndigal yàlla nañ ci ne ak jàmm te liñ ci mébal lépp yàlla nañ ko suñu borom defal. ci turu soxna Ndeye Fatma Mbacké suñ présidente nationale ci ndigal yi nga xam ne dafa jóge ci ay kilifaam ba yegg si ci ay loxoom nee na muy ndigal loo xam ne nii amatutum xëy amatutum ngont te ndigal li jàll nee na mi ngi koy soññ wilaay femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bitim réew yëpp nee na kenn ku nekk. na bàyyi xel ci bis boobu ci njàngum alxuraan mi nga xam ne ak xasida yi nga xam ne moom la ay kilifa am digle nee na kenn ku nekk na ko bàyyi xel te fas ci yéenee nekk ci bis boobu ak fépp fu mu la mën a fekk nee na ku mën a egsi ci barab bi nga egsi ci barab bi ndax amut lu may ndigal te moom ndigal jëfe rek la ci xam nee na mi ngi takk loxo saayam nekk ci ginnaaw ay kilifaam fës na yéene lépp loo xam ne ni moom lañ ko digal mu fas yéene koo jëfe ànd kook wilaay femme yi mu àndal yëpp nee na mi ngi sant yàlla bu baax a baax nag bi ko yàlla boole kilifaam yii te di leen ñaanal yàlla suñ borom bi yàggal leen fi lool ñu ànd ak wér ak kàttan ba fi ñu bëgg a yegg seen liggéey maam bii seen liggéey waajur yii ñu yeggale ko fa soxna Ndey nee na mi ngi delluwaat di sant yàlla lool di sant wilaayu femme yi nga xam ne moom la ko yàlla booleel ba mu mën a liggéey liggéey bii ci ni nga xam ne moom la ko bëggee nee na mi ngi soññ ñëpp nag ci ndigal li nga xam ne sëñ Muntaxa da koo joxe muy lii nga xam ne mooy takk masque mi nee na ñëpp takk masque ku ñëw ku ne na nga tas takk masque kenn ku nekk nag na nga fas yéenee takk sag laxasaay sol sa wilaay te palmaanu te fas yéene lii nga xam ni mooy tóokóor ba di liggéey ba bu leen ca kenn mën ñi nga xam ne dañoo mën a jàng xasida di mbaarum daaru xudóos ak li ko wër kenn ku nekk loo ci mën lu nekk na nga ko def nee na yàlla nañ ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim mu egg ak alhamdulilahi rabil alamina bismillahi rahmaani rahim <clears throat> asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalib ñi am mbégte bu baax nga ànd ak cant yu kawe di jottali ay kàddu yu ndigal yu jóge ci sëriñ Muntaxa euh, jëm si fii ci diwaan bi di euh, fédération de regroupement religieux de Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy wooye wilaya sëriñ bi wax ne ci kàddu sëriñ Abdourahman mii nga xam ne mooy jëwriñ ji di kilifa gi mi ngi ci woo jabootu Cheikh Moustapha gépp waaye nag kuréel gi nga xam ne sëriñ bi da ko tànn tuddal ko boppam boole leen ak xisbu tarxiya mi nga xam ne moom lañ jiital ci liggéey bi mook sëriñ Hamsatu moom sëriñ Sohaybu dafa wax ne ñun dañ ci am ñaari cër cër yi mooy cëru taalibe la waaye dafa fekkoon weer wi naka jekk ñun ñu amoon ci cër bu rëy buñ daan def kon nag ñan ñun ñun nañ ko jàppe ne waajtaay la jëm ci suñ bis bu màgg boobu nga xam ne naka jëkk dañ ko daan waajal nañ ko daan waajal it ak ni sëñ bi wootee bis bii di benn rek ndax lépp ci delluwaat suñ borom la ci tuub la ci sellal ak jaamu yàlla waaye nag di ko jaare ci mbindum sëriñ bi akum jàngaleem xasida yi nag sëriñ bi moom la tudd dafa wax ne bisub xasida la kon luñ ci mën a def jaamu yàlla yaatu na lool waaye nañ jàpp ne xasida la sëriñ bi tudd mooy ndigal li xasida nag niñ koy jànge bari na kuréel yaa ngi fi nit ñi dañ ko durus waaye nit ñi danañ rajas njàngum kenn kenn njàng yooyu yëpp nag lañu soxla moom it ay njàngin yuñ ci tëral nga xam ne ci ndigalul sëriñ bi la waxe ne xasida bu sañoon benn xasida genn kuréel du ko jàng ñaari yoon loolu mu mel ne programmation bu mag lay doon di ab liggéey mu mel ne nosu googu sëriñ bi waxoon ne bu Tarqiyyah nañ ñëw ci wilaya nosu ko kon day liggéey boo xam ne ñoom ñoo ko seq ci organisation waaye ci euh, jàng ak yaxal kon nag sëriñ bi wax ne mi ngi jottali waat ndigalal sëriñ boobu di ko yaatal ci mbokk yëpp ak mbokki taalibe yi ñu fonk ko ci fas ko yéenee jëfe ni mu ko waxee euh, ci ànd ci ak pas-pas pas-pas bi nag nañ jàpp ne ci sëriñ bi rek la mën a jógee ndax moo xam lu tax mu tànn bis bi moo xam it lu tax mu woote woo ko noonu kon nag ku ciy ñëw na nga jàpp ne sa pas-pas dugal nga ko ci pas-pasu sëriñ bi di naan sunu borom ci kattanu euh, yàlla subhaanahu wa dara daraje yonent bi barkeb alxuraan ñu def tawasul ci sëriñ Touba xam ne ñun ñëpp sunu pas-pas tey jëbbal nañ ko sëñ Mountakha mu yóbbaale nu ci pas-pasam. ca ñaan suñu borom dafa ko ci ndam ak suutara lu kawe njott kawe suñ njott ñun ñëpp loolu la sëñ bi waxoon ñu jottali ko kon di sant ñëpp ñaan yàlla ñu egg ci ak jàmm ca man koo euh, jëfe ni mu ko waxee wasalaamaaleykum wa rahmatullah